إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kaw yi nga xam ne sunu borom moom moo ko jàngoo ñu ngi gërëm sunu borom bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu si waat ci doon keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ñu koy waxee ci muqaddima dar bu ne woowale góor ak woowale jigéen nga xam ne yegg nañ ci ngëm ak ragal yàlla ak fuglu ko ci koo xam ni borom bi subhanahu wa taala dina tag bi ci lu dul benn yoon ci téeréem bu tedd bi di alquran muy aayaat yu nuy jàng ba keroog addina bi tukki aw góor ngoog mbokk yi ak aw jigéen woo xam ni jigéen ñi dootuñu nampalati góor yu mel noonu wala jigéen yu mel noonu góor yoo xam ni ak jigéen yoo xam ni lenn ci biir at mi dox seen digganteeg jaam seen borom dëgg-dëgg dama waree ndax lay sabab sa mooy dañ doon fàttaliku bu baax di bàyyi xel bis bi nga xam ni te la ñuy dajeeg seen borom te it ñun ñëpp ñu war koo bàyyi xel. saxaaba yonent bi day sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi inna fi qasasihim la ibra toog di waxtaanee seen dund day ak waaw la cee nekk fàttaliku dafa bokk ci yi nga xam ne dafay dolli ngëm mooy nit ki di fàttaliku ñi nga xamante ni ñoom ñooy assaabiquuna al awaluuna min al muhaajirina wal ansaar wa man tabiahum bi ihsanin radiya allahu anhum wa radu anhum gaa yi lay àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi bokk ci muhaajiruun yi ñi bokk ca waa ansaar ñii di ay góor ñi di ay jigéen ñooñu di waxtaanee seen dund dafa bokk ci mbir yi ëpp solo nga xam ne loo dem ci ay nit di ko yëngu ña ngay bàkkoo aw nit mu leen jiir ci mbir moomee waaye ab julit amul ay góor wala ay jigéen yu muy bàkkoo wala mu di leen jéem a roy di dox seen dànk ñu mooy saxaaba ya nga xam ne yonent bi leen yar te loxol boppam la salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi comme ni ngeen ko gisee suñu bind ba lewee jeexaloon nañ kenn ci jigéen ñi kon day bi dellu soit kenn ci góor yi saxaabi bi màgg bi nga xam ne moom la ñu am yéene tàmbali bindam tey mooy Saadu ibni Abi Waqaas Saadu ibni Abi Waqaas radiyallahu anhu wa ardaa Saadu ibni Abi Waqaas kenn la woon ci ponkali góori saxaaba yi ñëpp màggoon na waaye rawante nañ ay daraja xam ngeen ni loolu lu yàgg la mu di am. aw nit boo leen rek da ngay gis ñoo xam ne ñooy gën a kawe ay daraja borom bi dafay wax laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ñu jëloon seen alal di ko joxe avant sulhul Hudaybiya yàlla mu ne ñooñu duñ yem mukk ak ñi nga xam ne ginnaaw sulhul Hudaybiya fekk li tax am na doole ci lañ commencé joxe seen alal yàlla mu ne duñ yem de wa kullan wa'ada al-husnaa ñëpp nag la yàlla dig baax ñëpp a baax ñëpp a baax nag waaye ñu yële moom am nañ ci ay dara daraja loo xam ne seeni morom duñ leen ci dal sant na bi waxaas mbokk yi kenn la woon saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saxaaba yi nag bari woon na ay saabu lool amaanaam comme ni ko nit ñi foogee pour wan la pour wan la ñu ni nu réeree saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yonent bi saxaaba na bi waxaas kenn la woon suñu tuddoon saxaaba pour wan la saxaaba yi ni ñu bari woon amal na ñu bëri ñun dañuy xam Abubakar ak Omar ak Ousmane ak gars yi nga xam ne ñooy benn benn yi siiw nii waaye dama ni saxaaba yi ridwanullahi alayhim gën a ngaa xam ni ñoo bëri saxaaba yi gën a ngaa xam ni ñoo bëri nga tiim téere bu mel ni al isaaba fi maarifat fi maarifat saxaaba al isaaba fi tamyiz saxaaba téere la bu mag boo xam dinaa koy faral di tudd léeg-léeg ci ko taalif mooy alxaafid ibnu xajar alxaafis ibnu xajar boo demee ca Saaba dafay dafa lay wax di la nekk ni mbooloo mi nga xam ni kenn ku ne saw tur ci saxaaba yi mi ngi tàmbalee woon saab rek nga xam ne téeméer ak ñaar fukk ak ñaar saab maanaam saab rek mooy li may wax mbokk yi léeg-léeg boo nee Ousmane la dañuy jàpp Ibn Affan boo nee Ousmane bu ñu Ibn Affan xamatuñ ku ci topp pour wala lii da lay wax ni ñu réeree saxaaba yéen bi saa sallam te wallahi waruñu lu ñu mën a réeree te Ousmane yi daanaka xaw nañoo toog li lim bii ma lim Ousmane Ibn Affan Ousmane Ibn Mas'ud Ousmane Ousmane Ibn Abil As mooy que yonent bi doon wax ni boo demee na nga jiite te wutum nottukat ak Ousmane yi bari saab am na ci ay saxaaba yoo xam ne matoon nañ téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñoo xam ne kenn ku ci nekk saw tur mi ngi tàmbalee saab dëgg la nag du saab ba pare ñu loolu wax kenn la woon ci seen biir ku ci mel ni saab ibnu xaysuma kenn la woon saab yi ku ci mel ni saab ibnu rabia kenn la ci woon ku ci mel ni saab ibnu zuraara kenn la ci woon bokk na ci saxaaba yi jëkk jiite juma ci madina moom saab ibnu zuraara ku ci mel ni said saab ibnu zaydin ku ci mel ni saab ibnu ubaada ki ci saxaaba yi gënoon a màgg la bokk ci wàllum saa si Madina ku ci mel ni Saad ibn Amr ibn Hiraa kooku moom Jaabir ibn Abdullah ñoo bokk benn baay ku ci mel ni Saad Mawla Abi Bakr surtout Abu Bakr la woon ku ci mel ni Saad al Xaram mooy Saad jaaykatu nag nag kooku noonu ko fi yonente bi la woon sallallahu alayhi wa sallam kooku dafa ñëwoon ne yonente saa sallam man de dama amul lu ma liggéey wutal ma pexe yonente bi ni ko demal ca marché ba loo gis lu am solo rek jaay waa ji nag seen buy jaay ñoom ñëpp nit wallahi saxaaba yi bokk yi muy xool ci dëgg dañoo xam dundug lan la ñun dañoo jéggaloon yonent bi xeetu jéggal boo xam ni genn wàllaa ci genn wàll sax di dégg demal marché ba loo fa gis luñ mën a jaay rek jaayaat waa ji dem gis xool xool nag nag lépp dem mooy lan mu dem gis ku yore nag nag rek mu ne ko indi ma dem jaay soo paree jox la sa bénéfice waa ji jox ko nag nag yàlla defal ko ci baraka boo xam ne ka la jaayee am xaalis ci nag nag boobu moo tax waa jooju mi ngi tuddoon Saad ibn Adil Saad ibn Adil al muaddin waaye ni ko yàlla dafa lee tawfiq ca loola moo tax ñu naan ko Saad al Xaram Saad al Xaram nodd kat la yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen amoon nañ kan kan ngeen xam ci nodd kat yi Bilaal ibn Rabax Abdullah ibn Maktum Abu Mahzura mooy ki nekk la xadis booy noonu da ngay def nii lay door defaat nii sàmmul ah ak saadal xarab nii saadal xarab moo doon noonu ca Quba yéen ni paatoo bi daa indi yoo baax ni moom dootul noonu la ci ku ndax mënatu la noonu ca gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dem seeti beneen jaamu yàlla di ko def ci la ko Abu Bakar jëli moom saadal xarab andi ko mu remplacé bi laa di noonu ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon saadi yi bëri woon nañ trop trop trop loolu ngay dem saxaaba boo dem mi ngi ko tàmbalee xarful alif ba ba xarfu yaa bépp ci xaw boo xam ne saw tur mi ngi tàmbalee alif nga koy indi xarfu alif saxaar boo xam ne sa tur mi ngi tàmbalee baa mu indi ko ci xarfu baa ba keroog ngay egg yaa kon saab yi bari nañ lool lool saab naa bi wax ah nga xam ne saab bi Maalik la gën a siiwee moom la mooy turam mu gën a siiwee saab naa bi wax ah kooku la ñuy waxtaane di doon tey muy saadi ibni Maalik ibni Buhayb am ci yeneen riwaaya yu naan Wuhayb Wuhayb wala Uhayb Saad ibni Malik ibni Uhayb wala am ñu naan ibni Uhayb ibni Zuhra ibni Kilaab al-Qurashi dem ci askanu yonent bi direct ah ndax nijaay la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi da doon baaxoon nijaay ju mel ni moom bii saxaaba fukk yi ngeen di dégg naan ñoom ñoo la yonent bi waxoon yéen jigéen dem àjjana Abubakar fil janna wa Umar fil janna Usmaan fil janna Ali fil janna Talha fil janna Zubayr fil janna ba muy fukk ki ci mujjee faatu ñun ñëpp ki ci mujjee faatu moom mooy Saad ñii ñu nar a waxtaane Ibn Abi Waqqas fàtte wu ma sama laaj bi nag kaamil baa ngi am naa beneen laaj xam naa gars yi seen xel yi fàtte na waaye ban saxaaba bu góor lañ bëggee waxtaane Zubayr Zubayr Zubayr ibn al-Awwam Zubayr amoon na soxna soo xam ni waa Madina yëpp dañoo dëppoo woon ci ni soxna su yàlla defal tawfiq ku bëgg am sahaada ku bëgg a dee ci yoonu yàlla da koy tax ah ndax Abubakar da koo tax da koo tax faaf Omar takk ko faaf Zubayr takk ko faaf ku mu joxal kële Atika moo ko wax na dëgg jazakumullah xeyr Atika bint Zayd Atika bint Zaydin Atika bint Zayd moom laay waxal mooy soxna Zubayr bi nga xam ni sax waa Madina du doon lëppoo ci ni kii day képp ku ko takk da ngay am saxaara muy Atika bint Zaydin kon kii moo nekkoon di jaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam mi ngi doon Hamna bint Sufyaan Hamna bint Sufyaan ibn Umayya moom it tànn la woon ci Muawiya ibn Abi Sufyaan yaayu sax ñooy wax waaw tànn la woon ci wax gis ngeen affaire bi nu mu dugalantee yaayu sax ñooy wax waaw tànn la woon ci Muawiya ibn Abi Sufyaan ba pare moom sax ñooy wax waaw di jaay ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon Saad ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu wa ardaa moom mooy kii nii waxtaanee tey borom téere bi muy Mahmoud al-Masri mu ni inna al-insana la yastati'u an ya'isha hadirahu wala an yudrika mustaqbalahu illa ba'da an ya'khudha ad-durus wal ibar min maadihi ak wax dëgg nee na doomu aadama day mënta dund lam war a dund dëkk ci ne teew ah wala bu kat dabatal la paase lu dul dafay jël ay bind ak ay leçon ci li nga xamante ni ñoo ko jiitu ca la ma nekk rawatina nag aji gëm yàlla ci te foofu doo ko amee ku dul ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag yàlla daf noo baaxee ñu dajeeg ak góor góor goo xam ni ci àpp seen ñoom bokkal ragal yàlla la bokk góor goo xam ni ci góor yi gën a baax gën a dëgg ci kaw suuf la bokk góor goo xam ni wallahi doo ubbi taarix ni xool ay saxaatam lu dul da nga yéegu ci na nan la ndaw mën a yore yii critère yore yii melokaan ba neex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy baaxoo ah kon la chaque ni bu ñu dee jéem a nurlirlu kat danañ yegg ca ñoom la wax ba fa tasabbabu in lam takunu mislahum nurlirul leen su ngeen mel ni ñoom inna tasabbuha bil kirami falahu jéem a seet ña baax nga di leen jéem a roy kat ak seen ay nga tax ah ndax boo dee jéem xamaa ne yàlla subhanahu wa taala defal tawfiq nga dimbale dimbale ko kon sunu bi nag tey mi ngi jëm ci Saad ibn Abi Waqqas di ahadu asharati mubashirina bil janna ban ban la kenn ci ñi nga xamante ni yonent bi nee na leen yéen ajana ngeen jëm allahu akbar tey ñu ngi waxtaanee waa joo xam ni yonent bi da kaa xool ba si ko ne ko yow mu ne naam mu ne ko di nga dem ajana ayu shahadatin a'zam min hada ban seede lan ban diplôme la nit di yóotu ci kaw suuf bu gën a rëy ah man sama laa la duxul janna ginnaaw du ko ajana xam ngeen leen lu ko def déedéet lépp lu nit ki yóotu ci lu baax du ko àjjanaa ko féete kaw kon lan la nit ki yóotu ginnaaw bu ñee ko àjjana nga jëm lu bëgg ci te dafa mel ni koo ci mas a wax àjjana nga jëm rek loolu dafay wan dafay mel ni maanaam mooy yow sa jëm àjjana wóoru ki keroog lay gën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla sala bi waxaat mi ngi nekk li ci benn xare nee na damaa dajeeg benn waay waa joo xam ne moom ci ñi ñi foogee àjjana la bokk ñu daje ci xare ma ne ko maa ngi damay ñaan nga ñaan mu ne ma ñaanal ma ñaan sax ma ne la ma ne yàlla yàlla na nga ma dajale ci biir xare bi waa joo xam ne ponkal mu jool ca kaw bay doole nga may ma doole ci kaw mu dóor ko ba ren di ko comme ni ñuy ren di xaar ki ci def ni ko amin saas ni mu yow ñaanal waa ji mu ne ko yàlla yàlla na nga ma boole waa joo xam ne ponkal la mu jool ba ca kaw ëpp ma doole man ma te bu ma songee na dagg sama bakkan bi dagg sama nopp yi rey ma ma dem dem àjjana bu ma demee yàlla yàlla lii ci sa yoon laa ko defee saabu sëb bi jooy mu ne ko yow yaa gën a muus ndax man ki ma ñaan maa ko man yow ki nga ñaan moo la man ndax boo defee sa borom yàlla fay la kon ñii aw nit lañ woon yoo xam ne ñoom raye bi ak gënoon a kawe rek mooy dugg àjjana dugg àjjana parce que suñu borom wax na leen fa man zuhziha ani naari wa udxila aljanna faqad faaz ku yàlla xeet xëcc la génn la ba nga sori sawara dugal la àjjana yow xumul looy mën a wax waaye day affaire baax xóotu la waaja naan bu fa bu fànkare amoon àjjana sax bëgg naa ma ne ah waaw noo def ngay bëgg ndax àjjana kay lépp baax àjjana moom kaay taxaw ci buntu ngay gàmbe ndax pour nga wax demal demal jël ndax àjjana moom loo fa am baax kon gars yi nii leen meloon ci bëgg àjjana waaye kii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seedaloon na ko kenn la woon ci fukki ñooñee najaay la woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki ñooñee moo ci mujjee faatu te ñi fukk yu njëkk ci l'islam tamit nga la bokk bokk na ci ñi fekkee xeex yi yonente bi xeex sallallahu alayhi wa sallam juróom benn ya Abubakar tànnoon Amar tànn leen ci ginnaawam ni ñoom bu faatoo lan jiitoo mbiram jullit ñi tànn ka ñuy fal ci la bokkoon waaye nag keroog xaalisiyya la moo koy Xaalid ibn al-Walid yaakaar naa yéen ñiy dégg histoire l'islam di nga dégg xasatul xaalisiyya ci xeex boo xam ni ci xeex yi gën a metti ci xeex yi jullit ñi la bokk ci jamono Umar ibn Xattaab keroog dafa fekk Sa'd ibn Abi Waqqaas am ay taax ba mën ta toog yéen ku ci amoon benn taax doo leen jàng est ce que dégg ngeen di wax ñun ku amoon benn taax doo dem jàng ja saal keroog dafa amoon ay taax ba mënta toog mënta bank tànk bi waaw amal ni ko du kee arab yaa ko jiite de mu nam gars yi xam nañu kii mënta bouger mètre waaye technique ci xeex ak ñeneen ñi ragal yàlla dëgër fit moom dafa fekk ci moom baax ñu ko gëloon benn xayma bu yéeg ci kaw xayma bi di yëngu jullit ñi xam ngeen xare booba ci ngeen dégg saxaawa boobu nga xam ne moom la ñu wax abu mihjan naan kat sàngara boobu saxaaba yi amoon na seen biir loolu nag maa ngi koy nekkali ngir gën xam ne wallaay saa ak taarix bi jënd du nax sax gis nga boo jàng taarix da ngay xam nan la ñuy doxalee léegi ala sabili misal wala ayasu billah bu yàlla nag soo woon kenn ci suñ biir muy naan sàngara nan ngeen def yéen bu ñu yàlla nag soo woon benn waay buy naan sàngara suñ biir pour mën nañu la maanaam su ñu nee ñun dañuy jaay ak fir te fekk fir ñu de danañ bànnaat ci moom danañ ko sànni danañ ko gàddaay duñ wax ak moom kii dafa bon kii dafa nangam tagge ko ñàkk suñuy diyaaba ci moom saxaaba yi amoon nañu naan sàngara am ñu njaaloo am ñu ray am ñu nangam ci ay bàkkaar ndax ay nit lañ kullu bi adama xam koo li ma ko pour encourager def rek bàkkaar dañ ko pour wàññi ne loolu foog ñu am bu amee nan xool nan la saxaaba yi doon def seen société bu loolu amee amul ñex jan dara naan sàngara saa bu naanee sàngara bu dikkee saa bi waxaat da koy caawa caawa caawa caawa caawa yaram bi taal mu tëj mu demaat naanaat sàngara di ko dëkkee noonu waaye est ce que dafay tax jullit ñi bàyyi ko déedéet ab jullit la waxoon naa leen ko ci waa jooju nga xamante ni moo tuddoon imaam Abdoulaye Niass imaam ah yeneen bi dara wax eh bàyyi leen jàmbur bu ko kenn xas bëgg na yàlla ak yeneen bi loolu def na bàkkaaram daal fa soxla allahu akbar keroog xaalis bi dafa tombeeg abu mihjan naan sàngara ba ne tax wa amara taw ko taw yu mët ba pare yeew ko na pilim si mu ko yeew màndi gi dañ mu dégg fas yi nga xam yi nga xam yi nga xam mu laaj lu xew ñu ne ko jullit ñee préparé pour dem xaalis yi mu xool gis dana koo yeew ndax buñ ko yeew yëgu ko mi ngi ne tax mu sëgg fi mu sëgg di jooy ndax ba gan mbonte moo moo ko mën a dal ba mu toog fii di naan bañ koy yeel góor yàlla yi dem ca xare ba ngir am sahaab allahu akbar xool li muy naan naan tàngara mu ngaa bëgg sahaaba ko yëpp dafa am yoo xam ne ci feebar la ci yàlla subhanahu wa taala muy jooy ba soxna sax na di waxaat fekk ko fa ne ko looy jooy mu ne ko man de dama rëcc lu ma doon naanee bañ may yeew dama lay ñaan ngir yàlla yeew ma ko ci xare incha allah dinaa dellu si waatal naa ba suma deewut ba nga yeewaat sax ndaw si ni ko damay ragal su ma la yeewee sax da kër may problème mu ne ko incha allah su ma deewut bu xare bi jeexee sax bu yëg bi sax yeewe nga ma damay ñëwaat nga yeewaat ma yow ndaw si am neex jan di jooy ci kanamu ndaw si comme xale buy jooy ndaw si yërëm ko daal di koy jekki ni ko demal waa ji dugg ci wanagu saab nañ waxaat jël tegal saab teg ci fasu saab war fasu saab jël jaar saab dugg ci biir xare bi sax bi mi ngi taxaw ci kaw montagne bi siibre xare bi seen na ku maas kaw maas kab saad jaagi saad fasu saad waaye xamul kum doon waa jaa ngi mel ni sa waay fitt bu mer ci biir xare bi yi def loo xam ne ñi ne ci xare bi yëpp daanaka kenn mënu ko saad mu ne waaw fas bi dafa kaw saad la teg gi teg saad la jaagi jaagi saad maas kab bi comme ki ko def kum doon ba xare bi jeex saad xamul kum doon abu mihjan xare bi jeex defaatuwut mu wàcc ndànk ñëw yeew fas bi fekk sax da mënta bougé mu daal di jikkaat ndaw di yeew li gars yi ñittee li sax di jëkk laaj mooy ki ma teeloon mu yor fas bi nangam nangam xum ñu ne ko abu mihjan xoolal naan ko sax dara bi de wallahi sax da koo song di jooy mu ne ko wallahi laa adribu ka baada al yawmi bil xamr lu weesu tey dootuma la dóorati sàngara mu ne ko wallahi baada al yawmi laa asrabu al xamr gannaaw ci tey dootuma naa di sàngara mbokk yi bu ñu amee suñu mbokku njëriñ mu jàpp dañuy xam nu mu koy saytu ba mu dellu si buñ ko jëw buñ ko xas buñ ko wax lu bon lan ko fexe teg def ko ndànk bari na ñun ñàkk ñoo tax ñoo ñoo ñoo tax de bari na ñun ñàkk fekk ñun ñoo def li tax ñu ñàkk yéen doomu adama su deful bàkkaar rek nekk malaaka faw mu def ay bàkkaar waaye bu defee bàkkaar na fekk mu rëcc ko te su bare na gaaw tuub te bu mu ca delluwaat loolu mooy charte kon daal na loo xam ndam la julli ñu amoon ca xaalis yi moo koy rëcc yore saa yemul ca loolu waaye bàyyi waa na fuñ doon jaamoo sawara yaa fi saadu moo fa jaar faagaagal fa bañ fay jaamu yàlla subhanahu wa taala kon góor gu màgg boobu sabatuhu ala alxaqi radiya allahu anhu saad ku saxoon la ku am ak sax la ci dëgg ak sabat mooy sax ala alxaq ci dëgg ak am solo moom lu jar di ñaanal dëgg muy sabat ak sabat sabat ak a jar di ñaan ak a jar di ji maa ngi yaakaar ne am mbokk yi ñu war a defal waxtaan fan yi paas fan yi di ñëw ci tomba waxtaan bu mel nii wasailu sabati ala alhidaya yan mooy mooy mën a tax nit ki mën a tax ci jub mooy tomba mawdu la wa ala kullin nu xam ni sabat muy sax ak am solo doomu aadama tax ci dëgg mel niw faj lu ngelaw taw dëgër dëgër lu ngelaw ëpp lu taw taw taw lu tee danaan jeeg ci fi mu denc rek ndax awaas fii tey dafa bàyyi yii felaati alal ji day ñëw felwaaj kii jigéen a ko fel kii daa amul métier tey moom métier mu fel ko kii day tàn julli guddi guddi la woon léegi oh naaw na kii day tàn naaw na gis nga dafa am ay mbir yoo xam ne ay fakk la yuy yàqal ka ci gëm yàlla ci waaye saag bokk na ci góor yi gënoon a tax bokk na ci ndaw yi nga xamante ni dañoo teeloon lool am place bu rëy ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la dafa nekk ndaw rek ubbeeku ci yàlla bëgg loolu jub ak nan la ñuy fexe ba génn nit ñi ci jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala jaamu la leen borom bi subhanahu wa taala génn nit ñi ci lee lëndëm lëndëm yi bokkaale yàlla yóbbu leen ci leeri pas-pas nga xam ngeen ni kat avant yonente bi yàlla di ko yónni saxaaba yi dañoo nekkoon ñoo xam ne ak taabi ak ak ak gaa ya ba nekkoon ñoom ñëpp ci jànku te ci lëndëm landi ko la ku jub daanu ñëpp di faagaagalante di lekkante ay alal waaye yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam di ko yàlla yónnee ci la biir moomu tàmbalee dañ kon yàlla subhanahu wa taala bi mu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saab na bi wax oo boobu mi ngi fekk mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar xam ngeen ni gone la ah booba mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar bi ñuy gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy dugg ci lislaam boo fekk na mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar kon Saad bin Waqaas radiyallahu anhu boo ko daan xool borom xam-xam dañuy waxee da ngay defee ni mag na gis su waxee da ngay yaakaar ni mag moo wax mu nekkoon waa joo xam ni foo ko mos a fekk affaire affaire affaire affaire xare rek moo ko neex foo ko fekk daal ma nga dem sa àll ba for ay bant di yàq di nangam di di xaj di dóor ah fekk garab bu taxaw muy def di di entraîné lu tax dafa am góor yoo xam ne yàlla daf leen a mën a bindee ñeme comme Xaalid Saad nabi Waqaas te la bokkoon kon borom xam-xam dañuy def dafa def tabarus ala riyaada bil imaaya ba mel ni moom mi ngi préparé benn xare bu ñu ko yow tey nga tey dem te fekk ko ne la Saad nabi Waqaas borom bi subhanahu wa taala rek moom mooy ki rooboon leeru ngëm googu ci xolam moo tax borom xam-xam dañuy wax ni ah yàlla day mooy seet ku ko soob ci jaam yi boole la ci tànneef yi moo tax koo toll rek da nga war di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole la ci tànneef yi ah gindi la ñaata yoon ngay wax ihdina sirata mustaqim par bis ak a bari bis bu ne yaa ngi koy ñaan te ba léegi doy la góor moo lay wane hidaaya lu am solo la bis bu ne ihdina sirata mustaqim fajar ñeenti ñaari yoon tisbaar ñeenti yoon takkusaan ñeenti yoon timis ñetti yoon ngee ñeenti yoon bis bu ne di nga répété ihdina sirata mustaqim te saa boo xëyee di ko gën a aajowoo moo lay wane hidaaya wax lu mat a ñaan la boo demee ba ca jeexintal ba ni ko xëyril maxdubi alayhim bëgguma bokk fële wala daalin la bëgguma bokk fële bii laa bëgg bokk siraat alladina anamta alayhim laa bëgg bokk xëyril maxdub bëgguma faa bokk wala daalin la bëgguma faa bokk ginnaaw boo waxee ihdina siraat almustaqim kon hidaaya tamit nit ki da koy ñaan waaye yàlla subhanahu wa taala moo koy may kon borom xam-xam dañuy wax ni sax nag wax xam bokk na ci njëkk a dugg ci lislaam wala ñëw na ci ay riwaaya te mi ngi ci Buxaari day wax ni walaqad makattu sabaata ayaamin wa inni la sulusul islam saad nee na toog naa juróom-ñaari fan yoo xam ni ñett ñu dugg ci lislaam ñu dugg ci lislaam maa leen ñetteel maanaam bu ñu amee kenn ni ñaar ni ñett mu ni maa leen ñetteel donc daal xaaral ma xajal ci Fathul Baari li muy indi ñi nga xam ne ñoo njëkk a tuuba ka ca topp mi ngi naan amaan na saad mi ngi ci namm góor ña ah amaan na tamit moom lam xam la wax ndax am na ñoo xam ne dañoo tuub kenn dañuy laaxatu waaye li mu la bëgg a wax rek foofu mooy même bu fekkee du ñetteelu ñett ñay nekkoon na koo xam ne ku teeloon a tuub la moom sax am na wax ko ci jamono joo xam ne ci ni ay fan am na ñu wax ne toog na juróom-ñaari fan yoo xam ne moom amul mën de li li ma tuub kenn tuubu ci te toog naa juróom-ñaari fan maa ngi ñetteelu ñu dugg ci lislaam Yusuf ibn Waaji suuf mi ngi nekkale mu ni dégg naa Aïcha doomu Saad nee na sama baay nee na toog naa gisub lëpp ba ngoon jot te man rek naa ci tuub dugg ci lislaam foofu nag ñu bari dañuy jàpp ni Aïcha mii nag la Saad amoon ci doom fekk demeewul noonu am na ñu jàpp ni Aïcha mii nekk na xadis bii la Saad am ci doom fekk mbir mi demeewul noonu li koy foog lan moo tax ñu di ko foog mooy xadis boo meene ne dinaa ko tudd léegi ci kanam Saad feebar naan yonent bi téema defe ne damay day faas mu ne téema séddale sama alal ji ndax benn doom bu jigéen kese laa am xadis boo xam ne wéeru waaye dama def fekk benn doom boobee gis la amoon jamono joojee benn doom boobee la amoon mooy Aïcha di taawam waaye amaata gut yeneen kon daa foogoon ay faatu moo tax mu wax loolu xarit bi wér na tekkiwul ni benn doom boobu la am waaye amoon na ay doom am na ku mu tuddee woon Muhammad yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku mu tuddee woon Omar amoon na Musab amoon na Amir amoon na Ibrahim ak Aïcha bii di seen mag kon ginnaaw bi jamono am doom yooyu ñii ñëpp al imam Zahabi boo demee ci siiro alamin nubala ma nga leen koy tudd di wane ni ñii ñëpp kenn ku ci nekk solo na ci moom xadis boo demee ci mu xam ne fekk xadis ak juróom yoo xam ne sax ma yoo xam moo ko solo radiallahu anhu wa arda kon Saad bokkoon na ci ñi nga xamante ni dañoo teeral tuub dugg ci lislaam waaye nag yàlla nattu ko ni mu doon nattu góori yàlla yi ba alquran wàcc ci moom nag ndax Saad kat dafa taroon lool ibn abi waqas dafa taroon lool sar bu jéggi dayoo sax dañ wax xaram dafa su dugg ci lislaam yàlla nattu ko ni mu doon nattoo góor yàlla yi am xasibtum an tutraku wa lamma yaalam allahu alladina jahadu minkum wa yaalam asabirin am xasibtum an tadxulu ljanna wa lamma yatikum mathalu alladina qala min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا لا يسلمون دينهم sunu ngëm yi sunu sunna si sunu iltisaam gi sunu góorgóorlu si diine si na nga ko natt ci nattu yi sama li ma wax olof la ndax leer na wala déet sunu sunna si sunu iltisaam gi sunu góorgóorlu gi ndax yàlla nangul na ñoom déet ndax min ci yoon yoon déet na nga ko natt ci nattu yi képp ku gëm yàlla yàlla nangul na sa gëm faw mu musal la ci nattu yi nag de man yuridu llahu bi xayran yusibhu nattu mën naa ñëw nekk amoo métier jàng ba jeexal amoo métier nattu mën naa ñëw góom bu nekk sa tànk bi du wér mukk nattu mën naa ñëw feebar wax boo xam ne fas yéene woon ak goog moom nattu mën naa ñëw ñu génn la sa kër jigéen ñi yàlla dafa su borom kër bu bon fekk nattu bu boobu foofu la kee yàlla na toog soxna su bon fekk na kenn ku nekk nattoo nit ñi li ñu wuutee ay jëm ci xees kii ñuul kii gàtte kee joor kii kii kii kéenee ki noonu la nattu yi wuute nag gis nga ki moo fi am jot mooy ki nga xam ne li ko dal danaan waaw est ce que am na leneen lu ma dal lu tudd nattoom ci bu dul loolu danaan kon bii mooy saare nga jéem koo muñ waaye déedéet benn natt du am bu dee jabar nee naa ko wàcc bu dee jëkkër nga ni fase na ma dem bu dee feebar xaw mu wér xaw rek damay wér bu dee métti faw rek ma am ko ak lu ma ne mooy liggéey lu araam su baax na déedéet du loolu de xam ngeen mbir mi lan mooy doomu aadama ji mu xool li ko yàlla nag mu am ci fekk saa dañu wax ah comme saxaaba yi ci morom saa dafa nekkoon ku baax ci yaay te ñi nga xam ne yàlla dafa leen naftoo juuyoo seen wayjur ndax sunna si dafa moom kon yaayam lool ba jéggi dayoo te muy dugg ci bunta gënul waaye day yeneen bi wootee saa su la yoo xas daal di tuub dugg ci lislaam yaay yi mer ca loola ndax pourquoi muy dugg ci l'islam ndax dañoo bañoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgguñu woon diine ji saa su ne ne bi mu tuubee yaay ji ni ko sa daan na diine ka haada sa diine ji di nga ko bàyyi aw la aakulu wala ashrabu xatta amuut loolu ngeen di tuddee grève de la faim defe naa noonu grève de damay def grève de la faim du ma lekk du ma naan ba garab ngay jee lu xew muy ndax da ngaa dugg ci l'islam mu ne fa tu ayyaru bi fa yuqaalu yaa qaatila ummihi kon dama lay at pour xoolal mu ne kii de moo rey ndey moo rey yaay man arab yi loolu dañ doon def aw xas yaa rey sa ndey yaa rey sa xas ma loolu léegi aw xas la mais léegi kuñ ko waxoon waxoon nañ la lu bon même boo nekkee ci dëkk dañ laa wax lu bon kon dañ lay ŋàññee yaay gi rey na yaay kon dinaa toog du ma lekk du ma naan saa ne sëmm di ko dégg mu ne ko yaay tee ngaa dem nga lekk nga naan lii ma gëm gëmantuuma ko de xam ngeen ni ngëm mbokk yi ngëm beneen affaire ngëm bu xësee tàbbi ci xol dafay luxati mboolem lu fa nekkoon ci ak shirk ak bañ bañ ba bañ dëgg ak bëgg yëpp yëpp àndam roob te imaan ak ixlaas ak tawxid yaa ngi toog jour ne lëpp lekk saa ñëw ni ko gis nga yaay bu la yàlla dénkoon téeméeri bakkan lii dee dee topp ca dee dee dee topp ca lii dee dee topp ca ba quatre vingt dix neuf yi jeex nga ne sa tànn laaj benn dee des pour nga jeex wallahi fii laa lay bàyyi nga dee waaye du mu génn ci diine ci allahu akbar ñii day ñii ñooy ñi yàlla wax laa tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmil axir yuwaadduuna man xaada allaha wa rasulahu doo gis mukk ku gëm yàlla gëm àllaaxira di xayto wala muy méngoo wala muy bëgg lu neex ku bañ yàlla ak yonente mukk wala kaanu abaahu ñëpp nekk sa baay wala sa yaay aw abnaahum na nga ko jël aw ixwaanahum na nga bokk ak moom aw ashiratahum nañ sa mbokk dara lu tax ñoom ñu mën a résister mën a déggu lii parce que ulaayka kataba fi qulubihim al iman yàlla dafa dogal bind ci seen xol yi ngëm wa ayyadahum bi ruuhin minhu yàlla dëgëral leen ak ak kàttan kàttan boobu leen yàlla jox moo tax ñu mën a supporté lii wa yudxilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar te bu ñuy deemaleen sàmm aljanna parce que yent yàlla bi nee na kenn du gëm yàlla lu dul maa la gënal sa bopp ak sa alal ak nit ñi yépp gis nga yaay xam nga lu mu defa yootu reer na reer na suuf kenn du dooga tut boo ko defu da ngay dee de saxaaba yi amuñu jaaxaan de wallahi ni mu ko wax nag boo doon dee benn par benn benn par benn ma benn deret yi muy sànni sànni dama lay bàyyi nga dee du ma génn ci l'islam yu mel nii doon dal ay saxaaba yu bari ah ku mel ni ñoom Muaad ku mel ni ñoom ñeneen saxaaba yoo xam ne ñoom ñëpp comme ñu si ay misaal seen yaay am seen baay am waaye ñu bàyyi am am yooyu yëpp boo xam ne da ngaa demoon ba boo fi jaaree léegi cinq minutes après da nga fi jaar te doo ko gis nga xam ne jiwo fi jaar ndax xeeti parfum yi doon parfum ci am alal ah daal yi muy sol weekend bi samedi bi du bokk yi muy sol dimanche du bokk yi muy sol lundi du bokk yi muy sol mardi ndax bari alal l'islam ñëw mu fatal loolu yëpp sànni parce que ku ndik àjjana soxlaatoo dara ku ndik àjjana soxlaatoo leneen lu dul àjjana sax dañu wax waaw noonu la defoon ak gaay bokk na ci ñi nga xam ne dañoo def li ñu tuddee tadaxiya mooy sacrifice joxe seen bakkan ngir am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala lii moo tax nag yonent bi daf ko bëggoon moom sax muy wax waaw yonent bi daf ko bëggoon lool radiyallahu anhu di ko buugaree woo di ko bàkkoo jaabir ibn abdullah nee na kunna julusan عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله saxaaba yi nañ dañoo toog ba mu yàgg rek Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw yonent bi daal di jub daal di koy gàttandu daal di kontaan mooy daal di man yonent bi nag man seen yonent sama ndijaayee gii xam nga ko yonent bi ni sama nijaay nga moom saxaaba yi sax dañ lay kookaale ndax loolu maam saxaaba yi lu yonent bi bëgg sax dañ ko koy bëggale yaakaar naa que sab juwaye ya gis ngeen ko gaa yi jàppoon ni jaam yëpp yëpp dañ ko mujj liggéeyal lu tax parce que ñun du rus na noo jàpp goro yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di koy lëng kii moom sama nijaay la moom kan moo fi am nijaay ji mel ni sama nijaay la ci war na loolu dafay dugg si buntu kaas ci bi sallallahu alayhi wa sallam da doon kaas ak ñoom xam ñun suñu kilifa yi di def loolu di benn waaye ñëw rek yow sëriñ bi nga jël photo bi naan kii mooy sama nijaay loolu dañ koy rusa def parce que da ngay jàpp loolu day wàññi sa daraja fekk yéen yàlla saa sallam daraja ji muy am ak jullit bi daraja ji yu mel ni du ko wàññi moo tax wala na sukk sax yóbbu ay óor kii mooy sama ndijaay kii mooy sama ndijaay ku am ndijaay yu mel ni sama ndijaay jugal jugal nga wax léegi saxaaba yi ne sallallahu alayhi wa sallam moo tax Omar ibn Xattab dana xool sax doon yàgg ma ne ko billahi boo fi dof dof loo bañ a jaamu yàlla ngir naan yaay ndijaay yonent bi moo day yàlla nga xam lépp ndax may ndijaay yonent bi rek ah kon yonent bi mooy bàkko du ma jaamu yàlla déedéet Omar da ko wax pour tiital ko waaye Omar moo la gën a xam ni saabu di wax loolu moo la gën a xam loolu kon xarit boobu xarit la bu wér imam xaakim génn na suma sadrak xarit la bu wér maanaam sax yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ah saxaaba yi laa wax ridwanullahi alayhim ñoom dañoo xamoon ngëneel lu rëy loolu soxna si ni ci abdullah ibn zalim mu ni benn bis benn waay bi ñu al mugira dafa doon xutba mu wax ay wax yoo xam ni yéen ab julit di ko wax ci mbokku jullitam mu wax ko ci ali ibn abi talib ah nee na saïd ibn zaydin daal di ñëw daal di wax sànni boo xam ne ko ah yëg ngeen waa jiite li mu wax tey de ëpp na kenn lii kenn bu ko wax ku mel ne Ali ibn Abi Talib daal di koy nekk li ni ko man de dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu nekk ci kaw montagne Hira wala montagne Uhud te xalis bi waxoon naa ne ci dund Abu Bakar ndax xalis bi newoon naa ne dina baamu ci ay saxaaba yu bari ndax dafa ñëw ci min riwaayati Shatta waxoon naa ko dund Abu Bakar dund Amar dund Osman dund Ali dundu dundu dundu dundu Talha dundu Zubayr ah te ñëw na tey dañu la ñëwaat ci dundu Abdourahman ibn Awf ndax dama ñëw ci ay riwaayaat yu wuute yonent bi yéegee nee na mu montagne bi di yëngatu yonent bi këdd ko tànkam ni ëpp ëpp wax wax damaa bëgg nga bàyyi li ngay def nga yem fa innama alayka nabiyun aw siddiqun aw shahidun na nga xam ni ab yonent nekk ci sa kaw wala boog bu dee keneen mu nekk ab siddiq ku mel ne Abu Bakar aw shahid wala ku nar a shahid mu ne fa tamma nabiyu Aba Bakar wa Omar wa Osman wa Ali wa Talha wa Zubayr wa Saad wa Abdurahman ibn Awf wa tamma Saïd Saïd bi nit la xadis yi muy Saïd ibn Zayd daal di tudd si mit boppam moom it moom incha allah bala am na riwaaya sax gis nga saxaaba yi dañu ragalee am na beneen riwaaya bu dut bii Saïd dafa nekk ba yegg ci juróom-ñeenteel bi mu lim di lim wala saxaaba yi dañu ragalee woon yàlla rek moom dina bopp de waaye mu lima lima lim ba juróom-ñett muy ak juróom-ñeenteel ba daal di jàll nit ñi daal di ko déedéet déedéet wax mu juróom-ñeenteel bi ko mu ndax dañ kaa bëgg a xam mu ni jëru ko jëru ko ñu ni ko ahan kay soxla nañ koo xam mu ni jëru ko ñu ni ko ahan kay mu ne leen xanaa kon man la fekk da doon làqati boobu ndax dañ doon làq seen i jaamu yàlla radiallahu anhum ajmain kon sànq bi wax waaw bokk na ci fukk ñoo ci ñooñu nga xam ne bis yéegoon nañ ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma la ko waxee ñëw na ci ay riwaayat bu wuute kon jëf jii ma la wax daal sax aaya wàcc na ci borom bi subhanahu wa taala mu ni wa in jahadaaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutaahuma loolu mi ngi wàcce saar bi wax xam aaya jooju saar ba xam wàcc tey way bi su fekkee dañuy bërbëri ak yow ngir bëgg nga bokkaale ak yàlla lan tan ba lank kaay ba tudd jël naa ñu bañal waaye nag wa wa saaxibuhuma fi dunia maarufa aaya jooju nag bëgg naa ñun ñu dégg ko de ñu xam sa yaay day def ay xam wala sa baay mooy mooy mooy saaxiru fañ bi wala mooy nangam sax nga bàyyi ko doo ko dundal doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan ah loolu daa daa bu ñu waxee sax nga ne laanatullah déedéet du loolu de yàlla dani sa baay wala sa yaay su fekkee dañoo bëgg nga bokkaale ak yàlla lankal waaye nag wa saaxibuhuma fi dunya ma'rufa li ngeen jëkk ci mbirum àddina defal ko ko ci njëkk jox ko mu lekk de jox ko dépense mu lekk jox ko mu naan bu dee dafa bëgg def programme may ko baax su dee dafa bëgg jënd su may ko jënd ko suukar jëndal ko miin jëndal mbiri àddina la ci dunya ma'rufa waaye da ngay gis koo xamante ni déedéet du ma ko defal dara du ma ko ah déedéet alxuraan waxut loolu de bu faw ñu am ci fekk léeg-léeg ñun erreur yu mag a mag a mag ci fekk ci buntu boobu lay dugg kon wa saaxibuhuma fi dunia maarufan mooy mbir yu nu séq naa la ko defal su ne nag damaa bëgg organiser affaire xàmb yi nag nee na damaa bëgg ñaari junni bañal ndax ñaari sa ñaari junni dem soxi ay xàmb waaw kay li tu sëri ma la sa teg bi yàq su ne dama bëgg di sa xew-xew sàngam nga ne gis ni xew-xew boobe xew-xew bi daal dama ànd la benn sultaan wala yaari baat lankal waaw kay waaye nag ngeen bare bu la ñaanee ñu ko attaaya may nga ko ndax loolu fi dunya maarufan la ko kon gis nga aaya jooju ci moom la wàcc bal beneen aaya ngi nii boo xam ne ci mo moom bokk na ci ñi mu wàcc benn bis yéen yàlla dafa toogoon ak bokkaalekat yàlla yi ci màkka ah yéefari daal di ko waaye ñun ñun nag moom bala ñoo mën a bokk mais yéen sax du seen ci bëgg a toogal gaa yi ñu ne waaw fekk keroog bu mu toogee ibn Mas'ud ma nga fa ak benn waay bokk ci Huseyn ak Bilal ibn Rabah ak Sa'd ibn Waqqas ak ñeneen ak ñeneen yéefari ni ko ñun duñu toogal xuusmaa ñàpp yi loolu xalaat bi Ousmane Diak yi nga xamante ne ay wëndang la du ma duñ toog ak ñoom de gis nga ñoom ni ñu xeebaatee yéen dafa am benn gêne parce que yaakaar na ne su waxtaanee yéeme yi danañ dégg mu bëgg a wax saxaaba yi dégg na jub may gaay yàlla mu ne ko déedéet bu leen jub toog leen mu ne ko wala taxruj alladina yad'una min yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ñi nga xam ne su daan woon ñi ngi la toog jëm yàlla jox nga xam déedéet bu leen tax nañ toog ku bëgg a toog toog ku mu toog lu ko loo xam moo te toog jëm jëm aaya jii mi ngi wàcc seen saab ñu wax bal sax saaba yi ngeen dégg ñoo xam ne suuf fa saada mos na caa bokk saada xam ngeen ginnaaw bi am na tuuti at la waaye ci tàmbali bi dafa amul alal kon bu ñuy def ahlu sufa saada mos na caa bokk ak géer bu gàtt bi ñu doog jóge Màkka dem Medina yàggul rek après mu génn ci ahlu sufa mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo so jàkkee doon si ñenn ci sufiyanke yi ñoom la ñuy layee naan ci la baatu suuf ya tàmbale waaye déedéet loolu ku jàngu la koy wax yéen a tàmm koy wax suufiya am na beneen baat wax nañ ci ay wax waaye la ci gën a wér mi ngi tàmbalee ci nit ñooñee nga xam ni ñu nga ñëw ci bal saxaaba ya sax amul ay suufiya mu leer ba saxaaba ya amul ci seen biir ba saxaaba ya dee amul ba saxaaba ya faatoo ci côté Basra Sham ak Kuufa yenn dëkk yi nga xam ne ñoom dañoo xër ci jaamu yàlla def ba def ay jëf yu ëpp xeeb dëkk bi génn dem sa àll ba dem ca montagne du ma lekk salaat dégg du ma lekk ci yàpp du ma lekk lii ay ñax laay lekk ay salaat ay nangam parce que ñi daal nga di ko leen nga di ko lekk civilisé wu du ma sol yére yu awaay ñetti nangam nangam damay sol yére yoo xam suuf lay doon leen baat ba fa la tàmbalee loolu ñi xam-xam na ñu xamut ñooy wax leneen lu dul lii kon saa bokkoon na ca te ñoon yee muy am suuf ab diir waaye yàggut saa dañu wax faa borom xam-xami taarix dañu wax ne mooy njëkk a tuur deret ci l'islam jigéen ci njëkk a tuur deretam ci lislaam ci jullit ñi kum doon Sumayya góor gi njëkk a tuur deretam yéefar mooy Sa'd ibn Waqqaas benn riwaay nee na ca Makka la woon benn riwaay ni benn xare la woon benn sariya la boo xam muy soldat su ndaw xitaabu day yéen bi yabal leen li ñuy waaj a songante Sa'd ak ci bettam rek ni ko tayyi kenn ci ñoom deret tuur deret jooju la ñoo xam ne mooy njëkk a tuur ci lislaam am ñu déedéet ci Makka la woon am na benn waay sax dafa yëkkati ak yax yax yaxu fasuutee wala gileem rek mu dóor ko ko ci jëbi li mu tànn ñu ni comme moom mooy ci njëkk a tuur deretu bi yéefal ci lislaam saaba bi wax waaw ku bëri woon ay ngilin dañ doon tasaabu ci al xayraat gis nga saaba yi kaanu sabaaqina ila al xayraati kama amarahum rabbuhum njëkkante kati ci yaaba xam nga yàlla ni taarixu njëkkante leen julit bi aj nañ lépp ci yàlla la ko war a def ndax yaa ngi xalaat boo duggee baax na lundi bi nga faatoo lundi bi nga faatoo mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche balaa lundi bi di nga am sept jours ci sa biir bàmmeel wallahi sept jours yooyu di nga ci soxla ci ay tiyaaba loo xam ne di nga rëccu loo doon bàyyee kabiru tiyaaba yi di la romb loo xetaat laa taxqiranna min almaarufi cheyan yaa bu ci xeet dara wala an talqa axaaka bi wajhin talqin te teg sa mbokk ngir firi sa kanam sax mu ñeme la nga kiiñal ko sax même bu dee loolu nga am dara yéen yàlla bi ne innakum tasaru naasa bi amwaalikum alal ji moom mënoo fexe ba sa alal rek ñëpp ñëpp am ci waaye tey ji koy rafet sa kanam bu yeex man lépp mën nañ ci am man mën na maa nga jàkka ji ñëpp ma jox la alal bi ma fi ma toog déedéet waaye man ndox bi sa kanam jullit ñi xool la xam yow bii kat merewoo kenn yéen yàlla mu ni loolu sax baaxul bul xeeb dara ci sarax même boo dajeg sa mbokkum ji ubbil ko sa kanam loolu sarax la yéen yàlla bi bul xeeb dara bu rek ci tiyaaba même booy jël kellitu tàndarma nga saraxe ko abadan yéen bi ni ko bul xeeb dara ci tiyaaba même boo toggee lu am ñeex sax mu wóor la ni dawal gi mënoo caa mayee sax ban xob te ñeex ba may ca kala gën a jege wala kam xeeb allahu akbar est-ce que mbokk yi ñun xëree leen ñii ci wutum àjjana léeg-léeg nga gis léeg-léeg nga gis ku ni mel na léeg-léeg nga gis koo xam ni allahu akbar xeebu dara tegul ah dara tegu ko la dara dara dama ni soppat soppat yi ñu fekk ci jàkka ji sax dana ko far yóbbu xeebul dara bul xeeb de saxaaba yi nun lañ meloon luñ mës a dégg ni lii day may aljana wala lii su ma ko defee yàlla yonente bi kontaan ci man day góorgóorlu sa lool ñun nag amaana ñun xëy na dañoo am ay biir yu ñuy tàbbal aljana moo tax suñu xel dal saxaaba yi ku ci mel ni tànn bi wax waaw bëgg di ko yonente bi bëggoon moom it noonu la bëggee woon yonente bi waaye tawat ci dëkk yaa benn bis benn bis yeneen bi aay sama ñu ne dañoo ñëw ba ci àll bi guddi fekk ñu fi ñu def benn campagne noonu fa war a fanaan yeneen bi xool xool mu yàgg mu ne ah kii daa mel ni taay taay si mën nañu fay bett te ñoo wut ku ñu garde balaa ñu tëdd yeneen bi fi mu naan kan moo ñuy balaa muy yegg rek saa dina ko man taxaw ci kanamam boo ci jàpp dina ko maa lay gaar loolu nag di nga ci déggee ne ndekete comme ñun li ñuy foog non garaaw bi su ma defee samay dikk rek jeex na di déedéet yéen di bay dàq dikk tuur yéen bàyyi xel loolu de wala dégg nga boo jàng xamoo taari xam nga li ñu naan fooy tegi tànk fooy tegi tànk sax doo ko xam yow ci wàcc ci moom dikk di dikk di ñuy dani bu fàtte ni kii dafa jàngal waaye dañu man xaalisuna layla ku nuy gàmbe tey man man fi ne man mii léegi su ma jëloon benn gardien fekk sama bëgg te nit gars yi commencé kii de boos la léegi te daa loolu la ñu wax de gars yi loolu la kii de léegi boos la kii kii daa soppeeku léegi xoolal loolu ah kon yéen dina xanaa boos la baa daa soppeeku moom it moo tax gis nga ñun dañuy saawara di wax rek te xamul sax li ngay wax dama ne kii def moom xam na li muy def lu mu doon yéen tamit ku nuy garde la garde garde garde wala ay xadis ñëw na sax di wane ni kii garde alalam wala nangam saay saay ñëw di xeex ak moom muy dépendre ba kooka rey ko dafa suxaat boo ko reyee da ngaa rey moom moo perte ci garde la jox garde ñun nag xamu na ñoo ëppal xamu na ñoo xamul sante bi wax xaas mu ni benn waay ay dama ni fa tamit ana sol sa sala mu jékki jaati ji nag mu commencé di bëgg woon yéen bi naa ko mën naa garde nag jël benn jaat rek xel ko ci ni pare pare jaati jaat yi dóorante yeneen bi ni koo kan la man ah daa ko sànni bi wax waaw ana ya rasulallah man la jiitu ahadikum damaa ñëw pour fas yéene gàll tey yeneen bi ne garab saxaaba yi yeneen bi xel mi daa dal ba dégg nañ mu xaram maanaam xatuy mooy loo xamante ni def wane ni yaa ngi nelaw mu ni saxaaba yi dégg nañ garab yeneen bi def ko sallallahu alayhi wa sallam di wane ni kat nelaw na waaye nag bul fàtte ne ay nelaw moom bët yaay nelaw waaye xol bi du nelaw moo taxit moom da mën naa nelaw ba yeewu kàbbar julli loolu nag moom joxal moom benn la rek moom waaye nag leneen ko def moom nag li gën a dëgër mooy da ngay jàppiwaat kon sant bi waxaas noonu la meloon radiallahu anhu wa arda yonente bi da koo xonkoon lool ndax nijaayam la benn bi sax dafa feebar sidna bi waxaas saadu dafa feebar ci màkka feebar bu métti lool nga métti ba jéggi dayoo te saa bi jàpp ni moom day baax yonent bi teeti ko sallallahu alayhi wa sallam di ko yonent bi teetee mu ne yonent bi man day bàyyi naa tuuti alal te xam naa ne sama feebar bii damaa yaakaar ma jaaree ko jéeg te man benn doom bu jigéen kese laa mooy li ma leen doon wax sànq moo tax ñu bari jàpp ni benn doom bu jigéen day fekk kooku mooy taam booba loolu rek la am booba amagul ñeneen kon sama sulu tey alal bi dafa ko bëgg a sànqee su amoon sept cent cinquante mille sulu tey ni mooy cinq cent mille bi ba sulu tey mooy deux tiers moo lay sànqe bàyyi benn bi te loolu l'islam da koy tere sànqe baax na waaye sa alal dañoo sànqe lu ëpp sulus bi soo amoon sept cent cinquante mille nar a faatu ni damay saraxe cinq cent mille deux cent cinquante mille laay jëndal sama njaboot loolu même bu ko bindee ci wasiya ah mi minaatkat bu liggéey naan wasiya bi wasiya jaayira la kenn du ko mën alal ji nga am dañoo jël lu ëpp sulu tey lu ëpp sulus ba di ko joxe boo amoon sept cent cinquante mille mën ngaa jël deux cent cinquante mille bi lañ ko jox jiw ak jiw ak jiw wala defal leen ma ko fii waaye cinq cent mille sa njaboot ñoo ko moom àq la bu leen yàlla jox yonent bi ni ko déedéet mu ni ko kon baal ma wàññi si toppatu si tuuti mu ni ko déedéet mu ni ko baal ma toppatu si mu ni ko mu ni ko waaw fan xaaral ma jël benn sulus bi bu doon cent cinquante muy deux cent cinquante bi ma saraxe ko yéen bi nag même loolu sax ëpp na gis nga nga bàyyi sa njaboot tuuti alal ñu bañ di yalwaan ci nit ñi moo gënal yàlla fuuf nga def ko fii sabilillah nga dee sa njaboot di yalwaan da nga xëy moo tax ngay def li ngay def dama sa njaboot gi bàyyi am nañ àq ci yow dañoo ko joxe fi sa la parce que yéen yàlla bi dañ la bi ngay dund sarax bi gënal yàlla nga saraxe ko mooy li nga jël ak ci dugal ko la soxna sa doom sa nanga gis nga jël sarax def ko ci sa biir kër moo gën a yey sax nga jox ko ca bés moom la ñu wax aqrabu awla donc nag bu askan wi doyalee rek njaboot gi mën ngaa joxe ñeneen ci biti saad nee na lay saar yonent bi daal di jël loxo mu ne allahuma shfi saadan wa atmim lahu hijratahu mu daal di jël loxoom teg ko ci sama dënd bi ni ma yàlla yàlla yàlla na nga saafara saama te yàlla na nga ko mottali li hijraam fay ko yoon bi saad nee na fa yonent bi tegoon sama loxo loxoom ba fii ma toog di ko nettali maa ngi yëg seddaay bi comme galaas diggante bu yàgg sax bu yàgg yàgg yàgg mu ne fa mu tegoon loxoom gi ma ñaanal ba tey maa ngi sentir na mu seddee lu mel ni galaas mu ne ko fii ma tax ak yow fii ma yu xayyal illa saa mu ne fa ma ziltu ajidu bardahu ala kabidi fii ma yu xaalu xatta saa na mu seddee woon ba tey maa ngi koy yëg loolu la fii maa ne yonente bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ridwanullahi alayhim bi yonente bi baaxoo saa def ci nekk jaamu ko ci yàlla mag saxaaba yi dañ ko respecté woon ku nangu woon ñaan la nag moo tax ngay dégg léeg-léeg gars yi dama bëgg a defal ñaan ak xaas ñaan ak xaas amul ci lislaam bi ñaan ak xaas ak ñaan ak am amul ci lislaam léegi baat bi fan la jógee dana ma dund dama bëgg nga ñaanal ma ñaan ak Saad ibni Abi Waqaas loolu mooy wax xam nga olof moom daa mën a yàq baat rek damaa bëgg nga ñaanal ma ñaanal Saad ibn Waqaas ma ñoo nga ñaanal ma ñaan boo xam day nangu ñaan xaar dama bëgg nga defal ma xaar xaar amul ci lislaam xaar amul ci lislaam ñaan xaar amul ci lislaam ñaan Saad ibn Waqaas sax amul ci lislaam ñaan bu nangu am ku nangu waaye nit ñi xëy na buñ daan ñaan ak Saad dañoo bëgg ñaan ku nangu ku nangu woon ñaan la moom Saad moo tax ñu bari dañ ko doon moytu pour mu ñaanal leen waaye loolu yéen su ko ñaanal mu ne allahumma stajib li Saadin idaa daak te li ma firim di solo xadis la bu wér yàlla saa su la Saad ibn Abi Waqaas ñaanee rek na nga ko nangul lim la ñaan allahu akbar yii nag Saad da ko gën a siiwee rek waaye am na ñeneen ñu meloon noonu waxoon na leen Saïd ibn Jubayr noonu la meloon manoon ñaan man ñaan man ñaan ba am na genn ginaar gu newoon ci këram ginaar gi ndeysaan moo ko doon sax par fajar mu yeewu mooy montre sonnerie xam nga loolu xamuloon portable yeeg yooyu benn bis moom la doon baaxoon ci ginaar gi par benn bis ginaar gi sabu mu biddan si biñu yeewu mu mer mu yow yal na yàlla dagg sa baat bi rek ginaar gi fële dëgee sabatee ba niñ ko rendee yaayam ni koy li ñi ki tey bu ma déggati nga ñaanati lu ko ndax dafa am loo xam ni yàlla moo leen di barkeel ak seen làmmiñ dañuy nangu ñaan loolu nag mi ngi amate xatta saa xatta bii nu koy nettalee am na ay gars yoo xam ne wallahi buñ la ñaanal yàlla xalis yéen yàlla ma ko yàlla am na ñoo xamante ni ñu ngi lay romb di lëbax lëbaxee seen yére yu xotteeku su xaaral kawar yi bopp ah waaye kenn ku ca ñaan yàlla rek yàlla may ko lam ñaan ñu ngi am ba léegi de fekk nag daa fekk gaa yi dañuy làq ci biir gaa yi kenn du leen xàmmee loolu rek la saa nabi waxaa ci jamono yi amirul muminin radiallahu anhu waa kuuba dañoo jàmbatoon saat ñii naan mënta julleeg ñii naan day gaawal julli jeeg kenn ku nekk di wax ay kalaame Omar ibn Xattaab daal di koy yëg saxaaba daal ne ah ñu ngi may tooñ def liñ may tuumaal def moom maa njëkk ba daan ñu fett ci lislaam suur deretam yéefar te yàgg naa ànd ak yonent bi di xaay xiis nañ ba buñ masaara dem wana dañ daan génn lu mel ni fas yi génnee xaay ndax ay xob lu xobi garab lu leen ma konta bu ma leen waram de gaa yi dëgër boobu ah bi loolu amee sax nii wallahi kon de su fekkee li ngeen di wax am na laqad xibtu idan wadal la amay bu dee li ngeen may tuumaal dëgg la kon de perte naa ci dafa liggéeyal sànq la day waaye jaabir bi samura mu ne waa Kuba dañu ñëwoon ci saa ah daal di koy kalaame Omar ba Omar xolli ko salaam naa ñu wax naan mën ta julleeg day def lii yëpp day def laa wax ay wax yu bëree bëri Omar yebal benn waay ne ko duggal ci jàkka yi jàkka joo def rek laaj leen lan lañ xam ci ki ma salam muy saa nee na ñuy wër di wër di wër di wër ba yegg ci benn bi ñu Usaama ibn Qataada ñu koy wax Aba Saïd wala Aba Saada mu ni kii saa bu ñu waree dem xare fii la naan fit te day fenn saa bu ñu waree dem xare fii la naan fit ba pare yabal nit ñi gëmuñu ko wala yàq si ko bi sawiya suñu waree séddale séddale gi day jeex عدل في القضية صعب أكيد ما عمل تليكات فقال سعد أما والله لا أدعون بثلاث قال كي جد نعم كي ما نعم لك جسام لن يوحد ورن يوكا نعم ونعم يرد مسلمان سبت بن لسواني من كي ما نعم نعم نعم من اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قال رياء وسمعة فأقل العمرة وأقل الفقرة وأعرفه للفتن yàlla su fekkee kii lim may waxal ay kàcc la yàlla na nga guddal aw fanam guddal ak ñàkkam sóob ko ci géeju fitna subhaana almaliki alaam gis nga ne wa kaana baadu ay arrajul ida suila yaqulu shay'un kabirun maftunun asaaba ji daawa saam abdul malik nee na maa teg sama bët waa jooju ay dafa màgget gudd fan yàlla guddal gis nga gudd fan la ñuy ñaan waaye yéen gudd fan yi baaxul de wa min kuman yuradu ila ardil umri kay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an dem ba xamatoo dara ah dem bay jooy naan añoo te fekk añ nga ah ñu ne ci guddi nga ne doo tëdd ndax ci bëccëg nga nekk li kay la ya'lam ba'di ilmin shay'an doo xamante dara loolu mi ngi am de moo tax bokk na ci ñaani sunna yi mooy ngay ñaan màggat bu ñaaw maanaam mooy dem ba kumur dootoo xamee ci dara dootoo xamati dara dara dara barki démb ñu ngi maa ngi am sama benn maam day saan buñ may nekk li noonu la mel bu bu la nuyoo jaam sant na nga def yaay kan nga ne ko maa ngi jëm ngeen wax ba yeggal mu yow yaay kan sax yow loolu xam na la ko fukki yoon ak juróom gis nga dootoo xamati dara da ngay naax waaye dem màgget ba yéen yi wat ñàkk lool ba amul lu mu dundee xanaa màgget mu doy nii war naa am lenn lu mu xalaat lu dul dem ca mbedd ma di kos xale yu jigéen boo ko waaree mu ne man fi ne li may nekkee tayuma ku saa dama ñaanaloon ñaan ko saa kaw te daa fi noonu moo tax laa tazlimanna ida ma kunta muqtadiran fa zulmu yarjiu uqbaahu ila nadami waykat ba nee na bul tooñ même boo amee moyen tooñ ndax tooñ kat mu jëntal bi rëccu la de da ngay tooñ dem tëdd di nelaw fekk ka nga tooñ mer na xol ba jub na te yàlla jàppale na al imam az-zahabi mi ngi nekk ci al-kabair al-hafiz ibn hajar al-haytami bokk na ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-haytami di ko nekk ci az-zawahir muy qissa bu wér benn waay dañu yàgg ña dafa romb ci tefes ci benn moroomam bu bu jën wu ngàndam ngàndam xanaa bu fi lébu yi nekkee xaw ma tëll xaw ma lébu yi wax ne jën wu mag waa ji xool ko rek jën wi neex ko mu foqal ni jën wi ci moom dem waa ji xool xool xamut nu muy dem mu ne yàlla kii dem nangu na sama jën wi di ma jaay doole te doole ji nga am bu dee mi ngi ba tey wan ma ko ci waa ji xanaa jën wu ñu dugal ci biir pañe ba di ko yóbbu ca kër ga mattaate mënoon na ko cee bañ a fekk waa ji di ubbi di xool jën wi nu mel rek jën wi ngaan rek kepp baaraam bi matt ko bay baaraam bi yar te jën wi deewal loo pare waa ji dem këram joxe jën wi ñu defar moom jàpp ne nag dakk-dakk la rek xaar ma dem def mi ko xamu mi koro koro def nii nekkate yàlla nangu nañ guddi jot waa ji tëdd gunta tëdd fanaane wi ñaaru fanaane we ñaaru fanaane we ñaaru ba fajar jot mu xëy dem kër docteur docteur bi xool ko ni ko yow de lii mooy al akala li ñuy tuddee góomu robaale góom boo xamante ni bu la xësee dal moom lekk ba kat ngay dee wala ñu ni cancer wala yi am tey tey nga xam ne yi daal di dagg sa loxo baax tànk docteur bi ni ko gis nga baaraam bi boo ko dagg fii la jëm danañ dagg sa lii mu ne ko kon daggal docteur bi dagg baaraam bi ñu bànn ko xaj ko mu dem kër ñaari fan la ci teg affaire bi wulli di yéega mu toog mënta nelaw mu dellu si docteur ko ni ko ah lii dagg nañ ko waaye mi ngi yéega kon bu yow nañ ko dagg fii gaaw parce que buñ ko defut da ngay da ngay da ngay yàqu de waaye ñu ko daggal mu dagg fii ñu toog ñetti fan tegaat ko ci affaire bi di yéega yéeg ba yegg si bi mu ñëkkee ko wax ñu daggaat fii bi ñu yeggsee ba ci mbagg bi nag bañ dagg mbagg ma nag xam nga boo dem di nga fekk ay góor ñu xeer bi benn waaye mu ne ko yow nii lii dug neen wax mi loo def ba mu nettalee borom jën wa waa ji xakim ja ne ko kon nag damaa yaakaar ni borom jën wa dalaa dalaa dalaa ñaan yàlla tee nga kaa wëri waa ji di ko dëkk bi di ko wër di ko wër di ko wër ba gis ko li mu ko gisee ndeysaan borom li ma la doon jooy ndax ni loxo bi daggee moom la ñuy lañ koy tooñ tooñ li yëratul na ko dugg mu ne ko xanaa da nga maa ñaanal yàlla mu ne ko damaa waxoon yàlla kii wan na ma dooleem yàlla nag ma wan sa doole ji ci moom bu fekkee ne gis ba tey waa ji sukk ci kanamam daal di koy jéggal mu ne ko wallaahi boo ma jéggalul sax baal naa la ndax lii bëgguma ko woon ci fi mu ñibbisee xam nga lu mu def dafa dajale mbooloo mi ni sama loxo bii dama leen koo bëgg a wan ngir képp ku ma gis dootoo tooñe ci kenn ci àddina ndax ma nekk ibratan lil axarin ma nekk goir ngir ñi bëgg a ñëw moo tax ma fiy tooñ warute moo tax xoolal sax dañ koy jël tooñ du gàllaaj ñu xam ne dëgg di wallaay du gàllaaj warute ndax gàllaaj boo ko gàllaajoo rek mu xam kon ab julit du tooñ moo tax nag yàlla am fayda ci doy ni buñ la tooñee boo ñaanee yàlla nangul parce que yàlla yàlla musal lu ci tooñ te defal lu tawfiq ak nangu ñaan comme ça na bi waqaat mën nañu taxaw foofu di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq di ñaan alaaxira wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain